والقلم وما يسطرون asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew gannaaw bañ leen nuyoo ñi ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñi ngi fii ci ndaam di dëkk Serigne Ndaam Abdourahmane Lo ñu tuddee ko nag concours bi nga xam ne compagnie Serigne sekk mi ngi koy amal at mu jot te jëm ci mbindum alquranul karim ren Serigne Ndaam Abdourahmane Lo mooy parrain bi ñu war leen a wan nag mbooleem jaar-jaar yoo xam ne sëriñ Ndaam am na ko ak kan mooy sëriñ Ndaam ñu war a dugg ak yéen nag ci biir daara ji incha allahu rabbi nuun wal qalami wa ma yasturuun audu billahi min ashaytan rajim bismillahi bokk yi jàkkaarloog ñun ak fu ngeen mën a nekk noo ngi leen di nuyu di am mbégte lool ci turu sëriñ Bachir Lo nga xam ne mooy xalifa sëriñ Dame Abdourahmane Lo di ñaan yàlla sunu borom mu gën ko yàggal ci kanam jaboot gi te may ko wér. te boole ko mbooleem jaboot gi yëpp. nu amoon mbégte tey ci ubbi jotaay bi mel na jotaay bi nag ñu ngi fi feggoo ak suñuy mbokk ñu gën ci ràññee sëriñ Fallou Mbacké. bu ko defee defe naa ne li ëpp ci laaj yi sax moom lañ koy bàyyi mu gën koo leeral kon incha allah ñu bàyyi ko déglu ko incha allah. dégg lool ci jotaay bi ak li ko waral ak ki ko waral ak fi ñu koy defe euh, sëriñ Daam Abdourahman loo mag la woon moo xam ne bi muy xam leen teg a jëflanteeg sëñ bi jiitu na yoon wi taxaw. ni ñu ko xamee mu àndoon ak moom ci daara ak yi ca xew xam naa waxtaan ka yi ci kanam danañ ko indi yëpp ba yoon wi sosu ba sëriñ ndaam doxal ci yónneen boo xam ne ci sëriñ Tuubaa la bi mu daataan del si soppi ko am gannaawam yaakaar na jotaay yu bari nit ñi danañ ko ci di nettali bi mu delsee ba ba mu nettali ko it ci la ànd ak moom ci la sëñ ba doy ko mu ànd ci ak moom waaye loolu am jàngale la ci ñun ñëpp koy àndal ku ne i kóolóonte day dox seen diggante loolu dox na diggante sëñ daam ak Cheikhul Khadim eh, nawloonte day am loolu it dox na diggante sëñ daam ak Cheikhul Khadim loolu jàpp nañ ni mbooleem ànd bu ànd te nar sax ci téye yooyu lay tax lay saxawe kon sëñ daam loolu la ànde woon ak sëñ bi di yëngu ci xam-xam gannaaw ba mu ci xamee mu yëngu ci alxuraan li ci ëpp nag ci ndigalul sëñ bi la ko doon def sëñ daam Abdourahmane Lo ak alxuraan ak mag ñi nga xam ne nga ko jot a ñoo génn ci daara yi mm-hmm. loolu day mel ne day laaj bi day delluwaat. Hmm. ma daan ne lu jiitu yoon murit hmm. ndax fii eh, sëñ daan nekkee ci daara sëñ Maamoor Anta Sali hmm. foofu la nekk foofu la boo bokkoo nekk ak sëñ bi waaye alxuraan ji rafet jii nga xam ne moom moom la sëñ Maamoor Anta Sali gisoon ci moom moo taxoon mu doyloo ko ba joxoon ko lenn ci ak njabootam mën nañ cee tudd sëñ sëñ maam si Anta Euh, maam Cheikh Sidi Makhtar maam Cheikh Anta am ak rakkam Sëriñ Afiya ñooñu foofu la ko sëñ maam al sëriñ alxuraan ju rafet di mu ko ak mokkal gi mokkal gu wér gi moo waral loolu mu ko ba jox ko njaboot ñaar njabootam yooyu nga xam ne kon sëñ daam di ko demal alxuraan yàgg na digganteem ak daara tam yàgg na lu jiitu yoon bi waaye lépp nag mu ngi mi ngi tënk woon ci mu nekk ci keppaaru sëñ moo al fa la bokkoon nekk sëñ bi ba li ba ba sëñ mu am sali nelaw ba li ba ba ba yoon mu sasu ma ànd ak sëñ bi moo bokk ñi nga xam ne ñoo njëkk ñoo njëkk jaayante sëñ bi gërëm ko waaye bi noppee nag sëñ bi da koo ne ko bi mu amee li ñëpp am mu gërëmul sëñ bi sëñ bi da koo soppi loolu dama lay sop soppi liggéey def ko alxuraanu karim nga hmm. may liggéeyal alxuraanu hmm. ci njaboot gi ak mag ñi nga xam ne ñu àndoon ak sëriñ bi hmm. barab bii nag barabu sëriñ Tuubaa la bu mu sànc dëhaloon fi sëriñ Ndaam Abdourahman ngir muy jàng alxuraan di ko jàngale mag ñu bari it jaar nañ fi yoo xam ne jëlee nañ fi alxuraan ju rafet mu mel ni itam dem na ba daara ji yaatu lool diis lool itam ndax sëñ Ndaam nag wut ay kàngam yoo xam ne moom ñoom moo leen moo def ci ñoom alxuraan wëlbatikuwaat nag ñu jàppale ko nii sëriñ bi rëddi kër gi ci nii mu taxawe fenn fu ne mu teg fa kenn koo xam ne da nga faa ne di xamle alxuraan am bunt sa digg ak moom mu mel ni sëriñ Jibril Gassama mu mel ni sëriñ Cheikh Ndooy mu mel ni sëñ Balla Siise mu mel ni sëñ Modou Fall mu mel ni sëriñ Aliou Gassama ak mag ñooñee ñëpp daroon ko nga xam ne ci wetam lañ ne kenn ku ci ne nga ne di riir ci daara ji dëppoog daara ji jot sëñ daam ji fenn ku ne sëñ daama taal la fa ne kenn ku ci xam ne dox nga ba kenn mokkal wax nañ ne da nga daa ñëw ci sëñ daam fekk ko ci kër gi ne ko diw de mokkal na mu ne la baax na su jekkee ba yàgg mu wowaat la nga ñëw mu ne ko indi dongo ba mu indi sëñ bi déglul ko boppam bu mu wóor ko ne tubaarkaale lii kii wax nekk na. wàllu sëñ daam ak alxuraan ji moom lu fés la xam naa sëriñ si danañ ci dem waaye sëñ daam kon ne xam na ni fa mu daa jaarale alxuraan amu ci woon ab kenn siiw na lool ci. naa gi mu ci daa def siw na ndax man am na mag bu baax nee na ma ci mu jug ci mu mujj sëñ Mourou Moustapha dox ni ko sëñ bi ndax langa daa def mu ni ko biig day ndax yaa ngi koy man ba tey mu ni ko biig day bi may yëg ni maa ngi ci rakaa bu njëkk bi maa ngi ci suuf mu dooral ko am kon naka jekk li mu doon xat-xat teewul li mu waroon a toggoo ci yaramu bokk moom dafa amoon fullay di ko topp waxtu wu jotee mu def ko la ca des bu jotee mu def ko loolu lépp nag ñëpp dana war a tënk ci ci xam ni ki am ngërëmul sëñ Tuubaa bu fekkee bëgg nañ ngërëm ñoom itam ci sëñ Tuubaa mm. nañ nañ tënk ci ñooñu di leen toppandoo ndax diine jëpp toppandoo rek la dëgg la loolu moo war a lool sëñ bi bi mu sañtee dëkk bi tudde ko Daaru Alimul Xabiir mm-hmm. lu jiit loolu tam sëñ daam mës ta taxal sëñ bi Mbacke Kajoor Mbacke Bawol ba Mbacke Bari benn sëñ bi dem ci géej gi waaye ci biir loolu itam ñi nga xam ne ñoom la ko sëñ bi njëkk a jox mu njëkk jaar ci daal ji mais sëñ Omar Mbacke mu sëñ Mbacke Ibra mu sëñ Tuubaa sëñ Mbacke Kajoor ak sëñ Mor Roxaya Bousso ngeen ngeen xam ngeen ko di jëlaat Seexul Xadim sëñ Massamba di rakk di Seexul Xadim gannaaw sëñ Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil sosoog a jóg nga xam nii sëñ daam moo leen jàngal alxuraan dañu mokkal alxuraan mokkal bu rafet ba bind ak ña ak ak Cheikh Amou Cheikh mu Cheikhul Khadim hmm. ak Cheikh Mamadou Mourtala ak Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Abdoulahi Mbacké mu tëdd ak mag ñi nga xam tam nag ñu àndoon seen seen i taab ci ëpp hmm. sëñ daam mu la jàng alxuraan karim ñu mën cee wax sëñ Xaasim Mbàkke mu sëñ Aafiya sëñ Moustapha Guèye Yorowaay ak sëñ Moodu Maamun maam Cheikh Anta li ci a yéeme tam ba tey sëñ Moodu Maamun daam da ko jàngal alxuraan ba mokkal ba mid indiwaat fi ak njabootam muy sëñ Moodu Roxaya ak sëñ Xaamidu ak rakkam sëñ Moustapha Ceytu kon sëñ daam daa wax ne fekkoon ne maanaam alxuraan da ci retraité mu ne kon retraité noonu ndax jàngal doom mhm. jàngal baay mhm. jàngal sët mhm. ci moom lañ ko mas a gisee wallaahi ndeysaan ci la yéemoon ci àll ci ci daara ji mooy li ci yéeme mooy sëñ daam jàngal na alxuraan ba ni génnee àdduna fekk see fekk fekk seen xadim daara ji amul kenn ko fi mas a génn àdduna amul kenn ko fi mas a wéradi wéradi boo xam ne xam la loolu kon mooy wane ne liggéey bi ko sëñ bi doon liggéey loo sëñ bi doon nangu na mu def ko nag ni ko sëñ bi bëgg mu ne ko suñu bëgg woon noonu la ko def ba tey itam am na ci njaboot Seexul Xadim gi ñu jigéen ñoo xam ne jàngale leen alxuraan ba ñu mokkal ba médical bi muy soxna Maymunatul Kubra ak soxna Fatou Mbacke ñu di ko wax soxna Diop Mbacke ak soxna Musumatu ak ñeneen ñeneen ak ak bare bare ci njabootu sëñ bi ak ak soxna Xadi Jotu Mbacke biir Seexul Xadim moo ko moo ko seen waaw njabootu jigéen googu sëñ sëñ jàngal na leen ba mu alxuraan waaye itam mu delluwaat ci leneen muy soxna Fatimatu Tuuti Jóob mm-hmm. mi nga xam ne waajur Seex Moodu Mutala mm-hmm. ak soxna Jóob Mbàkke ak soxna Muslim mm-hmm. bi bi yàlla dogalee mu ñëw ci ëttu Seexul Xadim Seexul Xadim du ko jël jox sëñ daam Abdourahmane loolu moo ko jàng alxuraan ba mokkal ba bind juróomi kaamil est-ce nga xam ne loolu itam euh, lu lu yéemal loo xam ne baax baaxu Seexul Xadim la dëgg la ndax ñëw ñëw ci dem ci fi nga war a liggéeyal yàlla ñu joxe la ci nga euh, nga dugg ci daal nga jàng alxuraan bu mokkal mhm. ba bind kaamil mhm. ci la ci yéeme dégg sëñ daam doon jàngale dafa am lu mu doxoon min war a ni war a xijaab da ko doxoon seen diggante diggante ak moom jàngal na ko ba noppi duñ gisante allahu akbar waaw muy soxna Fatou Diop mi nga xam ne waaj li ma ko waxee léegi euh, kon nag sëñ daam Abdourahmane daal yàlla ñu ko suñu borom waaye teewul sam daara ji nag mhm. incha allah bi mu fi nekkee ba ni fi jógee mës mës a taxaw benn yoon. ba ba ba ba ba ba fi ñuy wax yéen daara ji jëmmi daa jëmmi kër gi daa daara mi ngi fi. bokk na ci njaboot gi nga xam tam yooyu njaboot njaboot suñu daa Abdourahmane Lo kenn ku ci nekk barab ba nga nekk yor nga fa daara di fa jàngal alxuraan karim di fa jàngal xam-xam. koo nawloowul doo ko jox sa njaboot. Mm-hmm. muy def ci ñoom jikko. Mm-hmm. ndax xale bu tuuti bi moom. lii ne ci moom ci jamono yooyu loolu rek mooy doon jikkoom ëllëg te loolu it lay doxee loolu lay waxee loolu lay jëfee koo nawloobu doog ko def moo tax dañuy wax ni diggante ab sëriñ ak taalibe na nekk ak nawloonte ndax dañu gis ni li tax jotaay bi am solo lool mag ñi niñ doon àndee buñ ko fàttalee ndaw ñi danañ góor góorgóorlu ci ñi ñuy àndal ñu xam ni ñuy àndeek ñoom ak fa ñuy yem ak fa ñuy jëme seen bopp ñoom wax dëgg yàlla itam sant nañ yàlla bu baax ci jotaay bii ndax sëñ la Cissé mag la woon lool bokkoon ci sëñ daam moom moo ma mas a wax ne sëñ ndam dañu daal digal boppi alliwa yi ñuy jàngale gone yi bu ñu bindee asawa jàll ci kaw nee na dañuy bindaat ci suufam ragal yàlla te di ko jaamu teg ca buur yàlla kuy tuub lay jéggal teg ca itam ne kuy sant lay dolli teg ca itam ne kuy muñ lay jox ndam kon gone gu tàmbali ak jàng alxuraan ràññeegut bët bu set bëtam tege ci lii loolu formation la boo xam ne yéeme na lool. rek sant ki nga xam ne moo am xalaatu dundal alxuraan ak teral ñun alxuraan muy alaaji sëriñ Seck tey jii mu jël kàngam bu rëy ci alxuraan ci atu sëriñ Touba muy Cheikh Abdourahman Lo ngir teral ko. mu mel ni kon ku ko teral rek teral nga alxuraan. Mhm. teral nga itam Serigne Touba. ci liggéeyam ci alxuraan. kon du ñu def lu dul sant ko te ñaanal ko te gërëm ko waaye di wax itam ne tey bu ñëwee ci ëttu bi ëtt la boo xam ne nangu naa ci waajuram mu wax ma ne ma bi nga xamee ne moom waajuram baayam sëñ Mahamadan Sekkoon mhm. bi nga xamee ne yàlla dogal na ci moom laa ko nangoo mu wax ma ne ma bi nga xamee ne yàlla dogal na baayam doon yilif Taïba mhm. waroon na ñëw pour sanc si Taïba mhm. ngir euh, boobu mooy moo moo fa mag mhm. mu ne bi mu ñëwee dem Taïba wàññeeku war a dem jëli njabootam dafa jaar fii ci sëriñ Daam Abdourahmane bi mu jaaree ci sëriñ Daam Abdourahmane ne ko wax ko li li li li yitteem sëriñ daam moo ko wax ne ko demal nga delluwaat ci sa dëkk boobee di bayti sekk bayti na nga fa toog ndax daara ak dundal daara damay ragal na soo ñëwee tey ba dootu la yomb te te na nga taxawal daara ji te yar njaboot gi kon ñaari mbir lañ ciy déggee benn bi mooy dégg gi mu dégg ndigal moo tey moo tax tey ku lem bayti fekk fa la nga fay fekk te donte gis nga la mu ko jënde it te mooy ak fal la ndax ñu ne la yaa mag nga war a ñëw yilif ñëpp waaye mu jënde ko ndigal loolu ci biir liggéeyal alxuraan itam mm-hmm. loolu it war naa soññ nag mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi doon liggéeyal alxuraan mm-hmm. nga gën caa laxasaayu te xam ne liggéey la boo xam ne du sànk mukk waaw ndax loolee booba jafe na lool ñu di la lool ci àll boobee te booba tay tay ba di di ay pays di taax waaye mu jëndee ko loolu kon nag euh, kenn ku nekk ci alxuraan daal loo ci doon def rek na ko gën a jàpp ndax xam ne liggéey la boo xam ne daal faaw rek sunu borom di ko fay. dëgg la wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. mbokk yi lii lañ leen jëleeloon tey Ndam ci dëkkub Serigne Ndam Abdourahmane loo ngir génération bii di ñëw mën cee jàngee waaye xam kan mooy Serigne Ndam ndax dégg Serigne Ndam dégg Serigne Ndam tey nag ñu indi leen Serigne Ndam en intégralité kii mooy Serigne Ndam Abdourahmane Lo ak lim fi bàyyi comme euvre ba beneen yoon ci beneen kilifa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa رحمة ربك بمجنون